mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah laata may sori ci kàddu gi dinaa dellu ñaanat leen ñu defaat une minute de prière ndax li tax ma ñaan loolu Birame Souleye Diop dafa lim léegi ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci li ñu boole ñun ñëpp mooy projet bi yàlla def ñu sakkan lool waaye place bi ñu daje tey juróomi at ci gannaaw dañ fi daje woon def fi mitin meeting bi matuloon xaaj sax ci li fi daje tey ñu pare meeting ba. kenn ci ñi fi nekkoon di suñu jigéen di jigéen bu am gëm-gëm am pas-pas bëggoon projet bi lool dëkk fii rekk ci gannaaw ay Samba Mboy daat koy faagaagal tey njaboot a ngi mi fii toog ci tànt bi ndax bàyyi na fi njaboot loolu rek waroon na tax ñu taxawaat tuuti jagleel ko ñaan waaye buñ ci boolee li mu lim yépp defe naa politique yàgg na Sénégal trop waaye lu daje ci diir bu gàttee nii ci ab parti politique boo xam ne song nañ ko fitnaal nañ ko duma nañ ko rey nañ ko tëj nañ ko kaso defe naa amagul Sénégal muy ñaaral bu war a tax ñu def une minute leen ñaan ma boole ci nag sàkku ñaanal suñuy soldaar yi nga xam ne tey ñi ngi aar réew mi rawatina fële ca Casamance te chaque fois ñu dégg ci ay bakkan yu rot muy suñu armée nationale di ay jàmbaar di ay patriote waaye nag di armée boo xam ne armée républicaine la kenn du musa toog senegal ba dégg ni armée bi mu ngay tiire ci kaw population bi te bis bu ne ñu ngi risqué seen bakkan ngir ñun ñu am kaaraange kon ma bëggoon ñu dajale ñooñu ñëpp néew ma une minute de silence dama ne une minute de prière kenn ku ne ci sa gëm-gëm ci sa diine ñu sànni leen ay ñaan bismillah maa ngi nuyu suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ ay dara Mbàkke mi nga xam ne këram a ngi nii dendeek place bi di kilifa gu ñu naw gu ñu sopp gu yaatu gu ñuy ñaanal di ñaanal réew mi saa su ne di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam yokk ko wér yaram teg ci nag di remercier coalition Yewwi Askan Wi gars yi dama bëgg ngeen tàccul ma les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi dama bëgg gis ngeen leader yi teew fii ma seedeel leen tey liggéey leader yu ñàkk kañaan ñooy leader yi leader yu am colère ñooy leader yi xam ngeen politik dafa doy waaye mën naa leen seedeel ni leader yi bokk ñoog leader yi nga xam ne dañuy toog di xaar ku ñu àndal ci politique faqasalu ba daanu ngir ñu mun a doon ñii bokkuñu si ma seedeel leen ni ñii ay gor lañu ay garmi lañu ay nit ñu am kóllëre lañu ànd ak ñun ànd gu rafet ànd ak ñun ci bëgg réew mi ànd ak ñun ci nangulante kenn ku ne ci ñun nangul moroomam li mu doon

kon maa ngi leen di gërëm ñi fi teew ak ñi fi teewul parce que ngant am na bu loolu weesoo nag dinaa leen wax tey tuuti ci man mii faraluma koo def de faraluma ko def waaye fi ma jëm moo tax ma leen di wax tuuti ci man kenn mësuma dégg ma wax ci sama bopp waaye sax saa su nit di wax war a wax ci man ma ne ko bul wax ci man waaye tey dinaa wax tuuti ci man ndax yéen ñëpp xam ngeen ni maa ngi tudd Ousmane Sonko génnal maa ngi tudd Ousmane Sonko di senegale à cent pour cent juddoo ci réew mi yaroo fi màggee fi jàngee fi musuma fee génn wala su ma génnee tukkiyu yu gàtt gàtt la yàlla may ma nag ma dëkk fépp ci senegal sama waajur bu jigéen di bawol bawol di siin siin di gànjool gànjool waaye diit tànke sama waajur bu góor di Casamance kon ma ne Sénégal ba mu daj amul fu may taxaw ñuy seddale te du ma du ma am sama wàll amut ma làq ci jamono ji ñeent fukki at ak juróom ñett 48 yàlla nag def ci mbaaxam daa ñëw xëy rek yàlla def ci mbaaxam xiir ñu ci politique waaye lan moo ñu tax a dugg ci politik ñun lan moo ñu tax a dugg ci politique ndax yàlla mayoon nañu ñu nekkoon fa ñu nekk di ci fortaatu lañ cey fortaatu munoon nañu ne cell ni ñëpp toog seetaan réew mi te bu saaku ceeb doon jar cent dinañu am luñ ko jëndee waaye dañoo toog ak suñuy moroom ba gis ni réew mi fi mu jóge baaxul waaye fi mu jëm a ko yées fi mu jóge baaxul mooy bi ñu amee indépendance ba léegi mësuñoo ñeme wax li war a wax li war a defar réew mi ak li fi war a génne lu fi war a dog bu mu njaam définitivement waaye fi mu jëm moo ko yéesati ci àdduna boo xam ne tey réew mu ne mi ngi xëcc jëmale ci boppam bu la yàlla na too yow nga am ay njiit yoo xam ne dañuy raam wala ñuy tëdd ci kanamu tubaab yi mun nga am petrol am gaz am or am zircon am géej am phosphate am suuf waaye ci sous développement ngay dee mun nga am loo bëgg a am te ñàkk koom-koom ñàkk koppar goo sa bopp ci sous développement ak ci ndóol ngay dee ñu nekkoon kon ñun dinañ dugg ci politique te buñ ci duggee dinañu am sañ-sañ ne lii moo doxul ci réew mi ragaluñu ci tubaab. ragaluñu ci américain ragaluñu ci kenn donte nag respecté nañu kenn kenn ku nekk ci ñoom lii moo ñu tax a dugg ci politique may gërëm balaa may continuer may gërëm gendarmerie nationale ci seen taxawaayu tey ndax bi ñu duggee Kër Massar ba léegi ñu ngeeg ñun encadré manifestation bi dañ nañ ñu ne pour jàppale sécurité bi xal yoon ba ñu yegg si fii lii li muy wane mooy buñ ko bëggee te respecter suñu constitution respecter suñuy loi bés bu ne ay sénégalais mun nañ manifester ci jàmm ñibbi ci jàmm te kenn du ci gaañu bagage du ci yàqu ndax ñoom ñi takk der ñoom ñi sol tenue ak ñun ñii ñoo bokk réew mi ndax lii andi problème yi mooy yow nga yor nguur ne man dinaa manifester saa yu ma bëggee waaye ki ne ci kujje bi du manifester ci réew mi loolu rek ay indi problème yi waaye daje waxtaan suñu waxtaan ñibbi gisuma lu mu yàq ci réew mi bañ koy tere ñaareel bi ma bëgg a wax balaa may continuer mooy di leen gërëm yéen ñëpp ñi fi teew di leen gërëm bu baax de. teyit teyit di leen ñaanal kenn ku nekk ci yéen mu dellu ci këram ci jàmm ndax ñu bari ci yéen jóge nañ fu sore sore te dañoo dox ak seen tànk ba yegg ñi jóge nañ fu sore sore jël ay oto ñëw nee nañ nag am nañu doon ñëw polis jàpp leen booru Thiès may waa police buñ leen bàyyiwul ba meeting bi passé su ma jógee fii Thiès laa jëm ndax nag jaay doole bi dafa doy ci réew mi te koy moyetu di ko moyetu di ko moyetu te moom seetul dara day am fu mu toll nga woon ko ni nag ëppalewu la ci réew mi kon ma continuer ne leen lii moo ñu taxoon a dugg ci politique bañ ca duggee it joxuñu nit ñi xaalis ndax yoruñu ko digguñu leen ñëw ñu def politique di xese xëcc nit ñi teg ko ci mbokk moo xam ñoo bokk dëkk wala ñoo bokk xeet wala ñoo bokk tarixa wala wala ñoo bokk lii wala lële wala lële waaye dañoo ñëw waxtaan ak yéen ci ay xalaat waxtaan leen ci vision ak gis-gis loolu moo ñu boole ñu rek yéen moo tax ànd boobu àndu dëgg la te àndu dëgg moo mën a soppi réew mi loolu tax fu ñu leen woo ngeen wuyu ñu fu ñu leen woo ngeen wuyu ñu suñ leen laajee sax seen koppar ngeen jël seen poos joxe. ma feddali lewaat leen billaahi wallaahi wa tallaahi du ngeen mus a toog ba ne am nañ déception du mus am billaahi wallaahi wa tallaahi du ñu mus a toog ba ngeen ne am nañ déception mukk ci àdduna am na loo xam ne gor moomu ko te gëm nañ ni ay gor lañu réew mi jaral nañu lu ne waaye jaral na leen lu ne loolu moo ñu boole kon bi ñu duggee ci politique di waxtaan ak sénégalais yi ah métti woon na de début bi ñett ak ñett la ñu woon muy ñëw ndànk-ndànk di ñëw ndànk-ndànk gis ngeen ni yàlla bu nammee def dara ci ñu jiite ay mbir day xotti xolu nit ñi dugal leen fa loolu lañu yàlla may suñu digganteeg senegal du suñu mérite bis mu ne ma wax ko ñi fiy def politique yépp gënuñu leen ëpp ñu leen njàng ëpp ñu leen alal ëpp ñu leen xam-xam waaye yàlla bu namee ay mbiram moo koy jaarale fi mu koy jaarale bi loolu amee nag Macky Sall ak ay ñoñam ne faw rek ñii ñu faagagal leen faw rek ñii ñu pexel leen njëkk nañu dem ne nañu jaar fi ñu doon jaare gaay yi fa ñu doon jaare gaay yi mooy lan mooy nañ dem càmbar ndax fi Moussa jaar di fa liggéey am na fa luñ fa mun a am dossier bu ñu teg ci ndondam ba mën koo faagagal yóbbu ko rëbës dem nañ impôt domaine bi ma ne woon amul impôt bu ma Moussa jaar te demuñu fa conservation foncière bu ne dem nañ fa di xool ndax am naa ay terrain dem nañ seet ay chef d'entreprise ne leen kii de mës leen a vérifier année sangam est-ce que daf leen laajoon xaalis wala joxoon ngeen ko xaalis mu nangu wër nañu fu ne gisuñu lu toll nit tarfata ay xam ngeen ndax lan xam ngeen ndax lan alalu àdduna jaraluma may def loo xam ne ëllëg dinaa taxaw ak sama borom ñu naan ma dërëm bii fan la jóge woon loolu àdduna àdduna jaral ma ko musuma jël dërëm bu ma moomul ci àdduna musuma koo def te duma ko musa def abadan parce que amul lu ko jar te yéen it ëllëg bu ñu yàlla dénkee réew mi ñu ànd ak yéen di liggéey bu leen dara jaral ngeen jël xaalis bu ñu bu ngeen moomul rawatina nag alalu mbooloo li ñëpp bokk ba ko fa la tudd bi ñu demee ba télé ci loolu ñu nekkoon nañ ko diaboliser nañu yàq deram daldi di yónnee ay mission fu ne dem seeti kilifa gu ne dem ci tubaab yi su ñu demee ci ay kilifa ne leen kii salafiste la kii tarixa lay bañ kii diine la bañ a dégg kii bis bu nekkee président la république dégg nga ma am màggal ak gàmmu sax dina ko fi tere fu ñu dem wax fa wax wax wax yàq der yàq der yàq der waaye lu ñu def def def yàlla na saxal lu ñu def def def yàlla na saxal ñu dem seeti tubaab yi ne leen kii tubaab lay bañ a dégg bis bu fi nekkee tubaab dootul dugg Sénégal ñëpp lay génne ci réew mi waaye tubaab yi am nañu xel de te ñoom ñëpp bokkuñu it waaye li gën a am solo du tubaab ya ñun neexaluñu tubaab seetuñu xam ngeen li am solo mooy yéen askanu Sénégal bëri na tey. bëri na tey ñu teew fii ay at ci gannaaw de xam naa ni ñu ci bëri ay at ci gannaaw bu ñu déggaan Ousmane Sonko sax boo li ñu ciy teg du doon lu rafet xam nga loolu mooy mbirum yàlla yonent yi yàlla bu leen yónni bu ñëwee di commencé wax kenn du leen déglu su ñuy wax sax nit ñi dañuy fatt seen nopp mais gis nga dégg boo ci nekkee te gëm ko. liy génn ci làmmiñ te di dëgg day dugg ci xolu nit ñi comme ndox ni muy duggee ci suuf bu tawe loolu moo indi lii kon ñu nekkoon entreprise de diabolisation bi jàppul sëriñ si ñu demoon gis di leen wax lu ñaaw ci sonkoo gëmuñu ko sénégalais yi ñu doon gëmloo gëmuñu ko tubaab ya seen intérêt lañuy xool De moo ne woon les états n'ont pas d'amis ils n'ont des intérêts bu leen leeree ni seen intérêt fii Sénégal mooy ñu naxtaan ñu naxanteeg Ousmane Sonko parce que askanu Sénégal Ousmane Sonko la ñu àndal dinañ ñëw raam ci kanamu Ousmane Sonko naxanteeg moom noonu la tubaab di doxali moo tax askan wi rekk am solo moo tax ñu ne la souveraineté appartient o peuple mooy yéen peuple rek moo am solo ku bëgg a defar réew fexeel ba juboog sa askan fexeel ba déggoog sa askan fexeel ba sa askan nangul la waaye foog ni yor nga armée yor nga gendarmerie yor nga police yor nga justice ku wax nga dóor waaye askanu senegal kan moo bëgg Macky Sall kan moo bëgg Macky Sall kan moo topp Macky Sall dama ne kan moo fi topp Macky Sall parce que da koo gëm parce que da doy ñi ko topp ñëpp xaalis bu muy séddale moo tax ñu topp ko kenn gëmu ko ci bu mitin fii te génnewul xaalis bu dul jeex. kenn du ñëw te bu génnee xaalis ku ñëw 4 heures 5 heures jibbi nañ ñoom ñëpp kenn du ko fi toogal ba heure bi loolu lu ma xam la yéen ay gor ngeen ay patriote ngeen yéen ñu bëgg seen réew ngeen te bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk bu leen jàpp ni jaamu yàlla julle koor ak yooyu rek la de waaye bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk ndax nag yàlla bi muy wax ci suratul baqara inni jaayilun fil ardi xalifa bi mu koy wax xam ngeen xalifa boobu mooy lan kenn ku nekk ci ñun ñi xalifa la xalifa nag mooy fa nga dëkk sa kër gi nga dëkk ci koñ bi nga dëkk ci commune bi nga dëkk ci réew mi nga dëkk foofu la sa devoir njëkk a nekk ñun ay sénégalais lañu kenn sant ñu ñu dem defar France wala Japon wala États-Unis ñun Sénégal lañu ñu war a defar bu ñu demee ci kanam borom bi dinañu laaj ñàkk ngeen defoon ak seen réew moom ma leen bàyyi woon yéen loolu ngeen moo tax ngeen toog fii ba heure bi loolu nag la Macky sal ne tey foog mu dakkal ko loolu la mag Macky sal ne tey faw rekk mu dakkal ko bi ñu demee ba gis ni diabolisation bi doxul ñu gis ni lañ doon wër ci ay dossier pour mën na ne mës naa jël dërëm fii wala la ne amul ñu ne kon nañ ko organiser ab complot dégg leen ma bu baax ma wax leen ñu ne nañ ko organiser al complot fi ñu fële moo gën a bon fi ñu njëkk a sax mbokk yi ñaari at a ngi nii waxuma ko pour jooytu de du ngeen mës a gis Ousmane Sonko jooytu du ngeen ko mësa dégg xam ngeen ndax lan man yàlla laa gëm yàlla dama koo gëm wóolu ko dama koo gëm wóolu ko moom kese nag ma jël sama lépp teg ko ci loxoom lu ñëw rek mooma bu neexee mooma bu naqaree moom la bu neexee alhamdulilahi bi yi rek bu naqaree alhamdulilahi ala xaal waaye lépp moom la rek moo tax waxuma pour jooytu waaye ñaari at yi weesu ma Sall ak ñi mu àndal teg nañ ñu man ak sama njaboot teg nañu injustice boo xam ne teg nañ ñu ay métit yoo xam ne yàlla rek moo ko xam ñu muñee ko yàlla nag ndax ku mu ngir yàlla rek yàlla jeexal ko fenk nañu seen fen boo xam ne fen mosu koo gën a rëy daal koy def ci anam goo xam ne lañ ci njëkkoon jublu mooy nañu gaaw jàpp ko tëj ko kaso ngeen taxaw ne loolu du fi amee askanu Sénégal yëpp taxaw ne du fi ame ñu dellusiwaat ne comme loolu am na nañu naxante dem uti doole waaye ci diggant bi nañu attaqué këram fexe ba tas këram tas njabootam métital ay soxnaam métital ay doomam daal di yónnee ay nit ñu nekk ci média yi suba ba ngoon jot fu mu gën a ñaawee rek ñu tibb wax ko ci sama kaw. loolu mosul am ci politique Sénégal musuñoo yegg fii wallaahi nit gënul bon Macky Sall ci suuf man maa leen ko wax nit gënul bon Macky Sall ci suuf parce que politique jarul yenn yi nguur jarul yenn yi te ñi muy yónni ñu nekk ci télé rajo di wax yàlla xam na ni mën nañu fajal suñu bopp te nag ma wax leen nit jamono jii nag foofu lañu ñu toll maa ngi ciy ñëw. maa ngi ñëw ci loolu maa ngi ñëw ci loolu dina ñëw dina ñëw waaye li xew ci jamono yi ñun wàccoo nañu ak Sénégal dama leen ne dinaa leen wax tuuti ci man tey may wax te yàlla seede ma am na lu ñu liggéey ci Sénégal ci diir bu gàtt am na lu ñu liggéey ci delloosi Sénégalais yi ci bëgg suñu réew te xam ni la gis feneen ak feneen mënal nañ ko suñu bopp fii ci biir réew mi loolu am na waaye lii ñu fenk génne ko ñun wàccoo nañ ci ak senegal moo tax ma ne man egg naa sama terminus ci seen dossier tappale bi egg naa sama terminus de ndax li xew daaw bi daaw jéeg bi mu xew ba pare ba kilifay wax ci ñun jàppoon nañ ni Macky dina am jom dina am jom daal bàyyi li muy def waaye ndekete moom même kilifa yi da leen doon nax da doon essayer jëfandikoo kilifa yi pour mun a am temps pour ne mu ngi dem waajali boppam pour ñëw dal ci kaw askan wi kon kooku amul jom te dafa gaaw fàtte. ndax ñi doon yónni ci moom condition yi ñu ko fekke woon mars 2021 mu toog ci këram di jooy ni xale bu ndaw sol ay pantoufle toog jabar ji naan nguur gi yàllaa ñu ko joxoon nguur dafa am bakkan bu jeexee rek jeex na anam yooyu mu nekkee woon ba gëm ni nguur gi jeex na bu ko yàlla jàppalee ba mu génn ci lool war waroon na xool neneen nu muy doxalee nu dul nii tey bu bëggoon réew mi dina moytu luy taal réew mi Macky Sall bëggul Sénégal de moom ak ay ñoñom dañuy jëfandikoo Sénégal pour liñ ci am ci alal waaye gëmuñu Sénégal moo tax ma ne ñun dossier bi wàccoon nañ ceeg Sénégal dañuy wax respect des institutions de l'institution judiciaire respect institution judiciaire boobu moo tax bi ma juge d'instruction woowee yéen ñu bëri da ngeen woon du dem du dem du dem may leen nañu dem rek ndax ñun xam nañ ni lii ay feni neen la te am nañu suñuy preuve yoo xam ne war nañ koo teg ci taabalu juge d'instruction kon nañ dem uyu ji juge waaye bi ñu demee jox nañ juge d'instruction rapport gendarmerie jox ko ay audio jox ko ay kayit jox ko lépp waaye bi loolu yépp amee gis nañ ni moom Maham Diallo maaxam Diallo du nit ku baax maaxam Diallo xam na ni moom fen na fenal na boppam fenal na justice fenal na askan wi yëpp waaye bettuma ndax anam yiñ ko tànnee xam nañ ko fiñ ko tànnee Sénégal yëpp xam na ko te lii mu def nii dina ko topp ba dundam di jeex parce que du yombee noonu ah comme nag def nañu loolu ñun jàpp nañ suñu terminus egg nañ fa kenn duñu këll këlle kenn duñu fontoo kenn duñu jaay doole suñu terminus ci dossier bi egg nañ ci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 waaye koo puus ba mu sës mu jóg jàmmaarloog yow loolu tax mu génne jaasi dem xeex koom ñépp man de ñi nga xam ne fukki bakkan ak ñeent yi nga xam ne rot na ci mois de mars ñun gënuñu leen waruñ ñoo gën gore te projet bi ngi bi ñu gëmoon ba tax ñu génn buñ ko sàgganee ba ma Macky def li mu bëgg kon ñun dañoo goradi Macky Sall na xam ne dinañu xeex ak moom na dem jënd ay armes Israël na dem jënd ay armes Ukraine na def lu ko neex waaye su delluwul gannaaw dinañu xeex ak moom te nag bu leen ci déglu kenn ku leen naan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna parce que fitna bi kenn ko yor senegal mi ngi mooy Macky est-ce que pare ngeen man maa leen wax lii bu dee pare ngeen te Macky Sall ne fi mu nekk lay nekk du yeggali mandaam 2024 du ko fi fekk may wax nag waa APR ngeen déglu ma baax waa APR li ngeen nekkee ci dëkk bi dina jeex de ndax ñun ñoo bokk dëkk fii koñ bii boo fi duggoon balaa koñ bi di jeex responsable après mi ngi fi dëkk fi lan la ñu yabee ak lan ñuy fontooy parce que jàpp nañ ñoom ñoo yor nguur rek nañu xam ne bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu yaakaaree ni ay ndawu Pastef ndawu opposition ndaw yeewi askan rek ñoo ci ñàkk seen bakkan wala lañ ciy tëj kaso jum nañu de gàtt sa gàtt sa rek léegi sa gatsa gatsa gatsa sa rek bu leen neexee bu leen neexee nañ ko tuddee appel à insurrection man Ousmane Sonko maa ko wax gatsa gatsa rek dootul demee noonu jeex na tàkk waa justice nag laay waxal magistrat yi nañu respecter peuple bi magistrat yi vous nous avez trop fait souffrir yéen a ñuy tëj ci lu dul dëgg yeneen a ñuy persécuter ci lu dul dëgg bi ñu commencé politique ba léegi lorange sur lorange suñu waxee ngeen ne respecté respect de l' institution judiciaire waaye est-ce que institution judiciaire respecté nañu est-ce que suñu respecté woon lii dina am li ko waa ji waxee rek dossier bi warul woon génn section de recherche procureur Bassirou Gueye fen ci ay fen yu ko neex def ci lu ko neex juge xam Diallo def ci lu ko neex foog ngeen ni ñun dinañ dem toog ay juge ñu tànn naan dañuy juger ñun magistrature ci réew mi ngeen dëkk ki leen di garantir ni mun na leen assurer sécurité kon danañu ut derrière chaque maison de magistrat derrière chaque famille de magistrat nañ fa teg une armée li ma wax nag li ma wax nag tekkiwul ni magistrat yëpp noonu la ñu mel am na ci ñu ci def seen liggéey correctement waaye ñii def lu dul yoon ba pare foog ni mun nañ ci mucc su réew mi takkee nañu xam ne dañuy nax seen bopp lii may wax nii moom lañu jàppee barki démb nit dof pourtant lii du menace lii araftu la wax leen nañu arrêté li ñuy def balaa muy trop tard parce que sénégalais yi sonn nañu ci lii lii dafa ñaaw ci réew mi sénégalais yëpp xam na ñi ñi ngi pexeel Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ni complot la mais ñoom nee nañu dañuy continuer soo waxee ñu ne force restera à la loi force restera au peuple sénégalais force restera au peuple sénégalais. Parce que la loi, c'est le peuple sénégalais. kon su ñu bëggee réew mi jàmm am na fi su ñu bëggee jàmm am fi magistrat am jàmm alkaati am jàmm ñoom ak seeni njaboot homme politique am jàmm fonctionnaire am jàmm transporteur am jàmm baykat am jàmm étudiant am jàmm kenn ñëpp am jàmm nañuy jàmmalante nañuy jàmmalante te respectante parce que mbir mi dafa ëpp lii nag bu leen jàpp ni seen tappale googu ñu ngi koy yemale ci dossier rek biñ naan dossier siif ndax dégg ngeen seen ministre bu waye di boobu may wax mu naan ma xaw ma lan ak lan dem na déposer benn dossier nee na diffamation may wax fii ñëpp dégg ko diffamation amul diffamation amul ndax dama liir benn document boo xam ne rapport IGE bu nekk ci internet la rapport bi ne épinglé nañ ko moom Mame Mbaye ci ay tooxi doone yi mu def moom ci Prodac ma waxaat ko fii ñëpp dégg ko man maa ko wax waxaat ko fii ba am ko mu dem déposé dossier boo xam ne diggante nit ak nit la waroon doon waaye procureur da koo écarté moom jël dossier bi procureur loo xam ne diffamation la diggante nit ak nit kon léegi diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko la xam nga ñoom lu ñu gëm mooy mun nañu dossier bu mag ba sax ñu bàyyi ko jaare ci dossier yu ñàkk fayda pour ne condamné nañ ko à deux mois ou trois mois avec sursis du nekk candidat en 2024 ma wax leen ni dinaa ko wax fii tey normalement dañoo am ay texte parti bi texte yi dafa am fooy jaar pour ñu ne kii mooy candidat waaye wax naa ko fii tey ndax ñëpp nangal nañ ma ko Pastef les patriotes a un candidat en 2024 il s'appelle Ousmane Sonko fii benn candidat la ñu am amuñu candidat de substitution amuñu candidat de remplaçant amuñu candidat de dépassement amuñu candidat ceci ou cela nous avons un candidat i kii incha allah dina nekk candidat 2024 waa justice ci seen bopp laay wax nañu génn ci politique bi seen rôle du écarter des candidats seen rôle du comploter contre des candidats Omar Maham Diallo su ne man criminel laa fenn ci kanamu yàlla xam na ni je ci suis pas xam na ni duma criminel musuma sàcc musuma rey musuma agressé musuma siif pourquoi mu may renvoyer en chambre criminelle moom moom mooy criminel moom mu ko def parce que ce qu'il a fait c'est un te crime boo xam ne ay bakkan mun na cee rot kon moom mooy criminel moo tax kenn ku nekk ci yéen na fagaru kenn ku nekk ci yéen na préparé te xam leen ni xam nga da ngeen ne ndigal dangeen wax ndigal ndigal gi dina ñëw toog leen déglu ma toog leen rek déglu ma ci fan yi bu ñu xamee ñoom fañ jëm di ngeen am ndigal bu dee fitna lañu ñu bëgg dinañu am fitna bu dee jàmm la ñu bëgg dinañu am jàmm ndax ñun. ñun nitu jàmm lañu ndax ku ñuy dóor boobu ba léegi dina rey boobu ba léegi di la kaso boobu ba léegi te nga ne teg nitu jàmm nga waaye nag jeex na de makki Sall bu dee jàmm la bëgg dina am jàmm ba mu mat sëkk waaye bu dee safaan ba la bëgg dina ko am ba mu mat sëkk tamit waaye déglu leen ñu ci fan yi rek ndigal gi dina ñëw may ñaan tamit suñu mbokk journalistes yi seen liggéey rafet na te gëm naa ne ay patriote ngeen léeg-léeg nit wax ci journaliste ma ne ko d'accord ma ak yow mu ne ma ah yow dafa mel na nga changé ma ne ko journaliste ñu ngi def liggéey bu am solo ci réew mi ndax saa su ne boo xëyee la matin liir titre journaux yi bi fi coow amee ci xaalis bi ñu sàcc ci affaire corona bi bu journaliste yi noppi woon boo moytul affaire boobu fay na bu yàgg bis bu ne ñu bind ci dafa fekk léeg-léeg peut-être kenn ku ne ci ñun da ngay bëgg yow li nga bëgg a dégg rek ñu la koy wax waaye presse baa ngi def liggéey bu am solo de bu waxee lu naqari ci ñun nañ ko nangu bu waxee lu naqari ci keneen ñu xam ni noonu la waaye li ñu leen di ñaan mooy ñoom dañu am rôle ci li war a stabiliser réew mi. di tàllal micro ay nit yoo xam ne saaga ak xaste ak wax lu bon ci nit na ko presse bi moyetu parce que loolu taal na ay réew nañ ko moyetu gis nga Donald Trump li muy nekk président Amérique yëpp li muy nekk président Amérique yëpp bi mu nekkee ci benn chaîne télé wax ba wax lu ëpp chaîne bi dafa couper émission bi ci saa si yeggalewuñu ko waaye Sénégal ngay gi nit toog ci télé di wax lu bon ci nit di ko saaga di wax ci njabootam di wax ci ay parents ñu taalal ko micro bi rek muy wax loolu nañ ko moyetu parce que day taal réew mi loolu du rôlu presse nañu waxtaan waxtaanu idée débat d'idée ku nekk ñëw ne man lii laa xalaat ci réew mi lii laa gis ci mbay mi lii laa gis ci njàng mi lii laa gis ci ressources naturelles yi loolu mooy avancé loo réew kon presse bi am na un rôle ci li war tere fitna am ci réew mi ma leen lancé appel boobu rek li ci des nag kenn ku ne ci yéen na waajal te déglu waaj leen te déglu li ma wax nag quatorze régions Sénégal yëpp laa waxal parce que bu jàmmarloo nar a am du Ndakaaru kese de du Kër Massar kese du yem Pikine kese quatorze régions Sénégal yi laa wax quarante six départements yi laa wax cinq cent et quelques communes yi laa wax ak suñu mbokk yi nekk diaspora déglu ngeen xaar ba ñu xam Macky fi mu bëgg a jëm ak ay tappaleem